politique dellusiwaat di dalal El Hadj Samba moom nag moo jiite kuréel bi di alliance nationale pour un développement durable et responsable nekkit candidat mairie ville bu Rufisque kilifa gi ñu ngi lay ci ces ci Equivox TV. waaw maa ngi lay fay di la nuyu Pape di nuyu ñii di déglu di seetaan yëpp Equivox TV euh, di kontaan di am mbégte ñëw fii. xam naa dina ñëwaat ci Rufisque ndax euh, yéen mooy seen première participation ña fa nekk. ñu leen di tudd di xëccoo ville bi ñii am nañu doole ñii tuur léegoo léeg dañuy wax ne yéen euh, ndax xam nañu leen fan ngeen di jaar loolu dinañ ci ñëw ak it lan ngeen di proposer comme alternative comme yéen a ngi woote woon ci digg bi ngeen ne maanaam nekku leen pouvoir nekku leen opposition loolu dinañ ci ñëw mais déjà ci actualité bi coow liñ ci nemmeeku jamono ji baxte Euh, Lémi Diaz mujj nango ni dana wuy ji le premier décembre te waxoon na ni du ca euh, du ko def violence bi un peu partout également ci local yi ñu jëm ba am ñuy njot ni boo moytul bu fësee rek mën nañoo jëm ci rapport noo ngeen koy gisee ak euh, noo ko jàngatee. jërëjëf defe naa ne ñun ñëpp bu ñu sañoon suñu réew jàmm rek moo fi am et violence bi yàgg am si politique defe naa dëkk bi ma dëkk sax nag. bokk na si dëkk yi ñu gën a xamee violence bu njëkk ba muy Tëngéej mais ñun bi ñu ñëwee euh, li ñu indi mooy euh, koo xam ne foo dompat comme ni ñu koy wax si olof daj sa bopp euh, mieux vaut nga bañ a dagg alors moo tax comme que fi ñu dëkk dafa bëri nit kaar macha allah et que ay jeunes fa ëpp ñuy oote dal alors dal googu nag du ragal mais c'est juste que au vingt et unième siècle bu ñu commencé defe naa tey ak les médias ak li ñuy gis ci àdduna euh, war nañ commencé ci réew mu mel ni Sénégal woy bi mu am ñu commencé def la politique autrement parce que bu ñu xeexee li may wax toujours day am ay dommages collatéraux mooy amul kenn kuy gagné amut kenn kuy perte parce que buñ bu ñu paree ñun ni neen la li koy wone mooy bu ci kenn faatoo wala mu génn àdduna mu nekk opposition mu ne pouvoir comme ni ñu koy waxee ñëppay dem jaali ji ñëppay maasaw ñëppay rafetlu jikko yu fi yoroon kon loolu bu fekkee dëgg la si ñun jot na ñu gën a def euh, indi daal jikko yoo xam ne dina tax bu lu mel ni élection jege seetee euh, ñu gën ko defee avec civilité maanaam wane ku ñëw lan nga fi nar a indi nan nga fi nar a toogee euh, ñu yor doole ji tamit muy nguur comme ni wax toujours force reste à la dëgg la mais ñoom i tamit ñu gën a tëddee njaaxaanaay pour que nu mu mënti demee rek équité gën a am ba képp kuy candidat ñu bàyyi la nga wone li nga bëgg a wone parce que période pré électorale c'est normal que ñëpp di gesticuler di wone ñoom lan lañ bëggal askan bi. mais lan nga jàpp ni moo gën a indi violence bi seen diggante ku ci gën a responsable. waaw dina jafe si man ma àtte. mais peut-être bugguma souvent def lañu ñuy wax wax sa xalaat. Hmm. damay prôné sax souvent wax sa xam-xam. alors puisque fekkeewuma lépp li ma gis ci média yi nag laa mën a jàpp. mooy euh, effectivement comme li ñuy wax koo si déglu dafay jafe si yow nga àtte lu tax muy jafe nga àtte parce que koo si déglu rek dafay mel ni moo wax dëgg moo tax ma ne période préélectorale dañu war a mun permettre lu mu bon bon bon nag ñu nekk ay acteurs politique nag si réew adduna bi yëpp dañuy génn si média yi dañuy génn si dëkk bi et suñu rombee ils fair du bruit loolu kenn mënu ko bañ ndax nag euh, siiw moo koy def boo ko nekkagul peut-être du demee noonu. Euh, c'est comme du ma wax sax politique euh, ñu ñuy ooyee si suñu jargon ñu ñëpp vedette yi tey benn woykat bu siiw bu rombee da ngay gis mbooloo mi topp ko benn footballeur bu siiw donc rawatina politicien moo tax ma ne loolu nag foog ñu koy tolérer loolu si dëkk yu mag yi sax dafa am dëkk yu ñu raw comme ni ñu koy waxee si démocratie alors euh, bi si des mooy ñu war ko sax encadrer parce que teg loolu su amee encadrement mooy les forces de l'ordre parce que force de l'ordre defe naa tamit seen rôle dafa am solo ñu encadrer toujours rek yu mel noonu ba jàmm di am voilà donc pour man ñaari parti yëpp comme ni nga ko waxee ci njëlbeen gi ñun contre ñu pouvoir contre ñu opposition dañu gis ne suñu dëkk mu ngi jël benn tendance surtout tëngëj gi ñu dëkk ñu ne kon foog ñu indi benn tëralin boo xam ne dañuy wone benn yoon boo xam ne beneen alternative la buy équilibrer les choses pour que Sénégal defe naa su fekkoon alarme am na dama naan Covid 19 dafa ñëw sonné alarme si àdduna bi. Hmm. dafa mel ni dafa ñëw nañu yeewu leen ngeen doxalee neneen doxaleen googu nag nañ si profito euh, ngelawaay si politique si lépp ñu bàyyi politique boobu ñu tàmm gis. Hmm. depuis suñuy maam ba tey. toujours ki nekk pouvoir ki ne opposition ki ne opposition su génnee ki ne pouvoir dàqe ko su ko dàqee jàpp tëj ñu dem marché mu génnaat mu génnaat waxaat lu gën a garaaw ñu jàpp ko système boobu non man système bi ñuy woote ñun mooy. yow suñ la dénkee dëkk nangam problème yi ne si dëkk bi nga xam ne jaru sax nga koy répété ñun ñëpp xam nañ bu si nekk nan nga ko nar a saafara fan nga ko nar a jaar lan moo tax nga jàpp ne yow mi juddoo si dëkk bi ñoom ñu juddoo si dëkk bi yow am nga yoon bu ñu amut askan bi ñooy déglu et bi ñu am si élection yi di ñëw mooy euh, suffrage direct la mooy ku nekk yaa yor sa carte yaay tànn ban meer nga bëgg ndax bu njëkk ba da nga daa tànn ay conseillers ñoom ñu dem tànn kan la ñuy fal bu dee conseillers yu doy mun nañ leen manipuler ñu tànn keneen ko buggul woon mais désormais yow mi ne si askan bi yaay dugg si mbañ gàcce ne diw laa bëgg mu nekk maire donc diw moom bëgg a nekk maire combat am xam nga lan la nan laay def ba wax ak askan bi ba convaincre leen ba ñu dénk ma suñ la dénkee itam yemul foofu nan ngay def nag ba respecter la nga leen digoon ba tax ñu wóolu la moo tax ma ne équilibre jot na diggante ñaari pàcc yi xiiroog ŋaayoo googu dafa war a nekk histoire dañ war a toog naan amoon na fi temps politique bu daa am dañuy sànnante xeer amoon na fi temps bu ñuy politique dañuy saagante temps boobu defe naa génération tey yi ñun war nañ si yeew waxuñ nag marche du am ak fippu loolu du ñàkk si askan am na yoo xam ne nag bu amee nit ñi fippu moo koy faj mais defe naa daal si côté politique moom pour des locales li ñu war a gën a chercher le point d'équilibre muy ku nekk si kujje gi wala ku nekk si pouvoir bi wala foo mën di mooy nan la defee élection yoo xam ne du wane doole parce que doole na veut pas dire nga nar a liggéey hmm. liggéey bi dëkk yi fi développé wu c' est pas forcément nit ñu ëpp doole ñoo ko corruption bi séddaleem xaalis beeg yooyu loolu par exemple bokk na si li ma gën a métti lu si suñu jamono ji muy euh, guerre guerre souvent nit ñi dañ defe ne si si yenn millier rek la am dafa yegg ba si askan bi ñenn ñi du ñëpp nag maanaam benn politicien bu ñëw si koñ indaale xaalisam bu bëri jàpp ne xaalis la war a convaincre nit ñi pour ñu voter ko mais bu fekkoon moom kese moo ko jàpp du garaaw mais li si garaaw mooy day am si askan bi ñoo xam ne ñoo ko si jàppale ñoo ñu tamit ils sont corrompus pire ngi koy jox ñu koy nangu pour voter boo ko nangoo te voter woon ki sax mooy yow dafa la may nga jël mais bu fekkee looloo tax nga voter ko mooy yow kon xaaroo ko defar dëkk bi ku régler problème mu askan bi si poche am ngay xaar waaw naam ndax am na benn dëkk bu ñu xam ñun boo xam ne kenn ku yor poche moo ko defar man de xaw ma ko réew yi ñu fi gis pour joxe si exemple yàggul dara ñu ngi fi wax Donald Trump defe naa ku xam aduna bi xam ne multimilliardaire la mais kenn mosul gis fu ñu ko wane muy distribuer xaalis li muy ne milliardaire yëpp mosul falu ba benn américain ne ko way yow sa xaalis bi ñaata nga ñu si may luñ doon xaar si moom mooy nan lay politiquer pour dëkkam jëm kanam. te du moom kese moo fi mos a falu en tout cas de manière démocratique si ay réew waaye lan moo tax ñun Afrique ñu dem jéggaani li ñu tuddee démocratie en partie en partie am na si lu amoon si suñu cosaan nag alors ñoo jéggaani ko ba pare di copier li si gën a yées mooy corruption muy ger lan moo tax ñu war a gëm ne dëkk bi ki fi ëpp xaalis moo ko war a jiite. Eh, eh, kon dañu war a tiitaan ah, ci le fait que ñu gis ci moo xam benn bokk yaakaar ni ñu gën a investir ay DG lañ hmm. wala ñu am ay portefeuille te da ngay dégg ñu koy wax su souvent ñu débarqué ci benn dëkk te tàmbali nañ ko sax ak seen i malette gi ci aju euh, loolu dañ ci war a tiit nu ñuy def ba saafara ko bu fekkee tamit njiit la ci élection présidentielle yi ñu génn moo génne lu war a jege deux ba trois milliards ci campagne boo xam te ne mënuñu ko tracé ba xam mooy financement de partis politiques bu fekkee dañ ko war a waxtaane comme mu mel ni tuuti lii dañ ci war a tiit ci local yi ñu ci anam gii en tout cas jëfin yi nga xam ne daal moo lii ak ger ñun ñëpp a war a tiit ndax ger dafa bokk ci luy daaneel wala nërmeel askan encore comme li may wax muy ku ne pouvoir muy ku ne opposition muy koo munti doon même donte sax njiitu diine nga képp kuy def ger defe naa amul benn échelle de valeur muy échelle dans le domaine religieux dans le domaine politique dans le domaine culturel dans le domaine culturel buy autoriser guerre alors lu tax ñu war si tiit liñ si tiit mooy ñun waa dëkk bi ñoo bëgg suñuy réew changer ñun waa dëkk bi ñoo gën a xam ne ger defarul askan alors ñi koy def nag ne ñoo nar a den njiit kon ban njiit lañ bëgg moo tax man souvent sax nit ñi lañ may bul waxee noonu ndax dina am la mere ma ne déet man falu gi bañu ma ko de mais nag du tax ma fi wax loo xam ne bu ëllëgee du ma mën a xool nit ñi euh, bu fekkee ne askan bi njiit bu leen di ger lañ bëgg nañ ko fal buñ ko falee woyaa yooyu ñun ñëpp koy defandoo rek parce que defe su ma jëlee fu mel ni Tëngéej fan yi rek laa doon visité dëkk bi di doxantu tuuti di xool comme nit dox dox ànd ak samay quelques personnes ñu ma bokkal lu ñu gëm mais soo gisee tëngëj sa yaram bi dafay daw alors dëkk yu mel noonu li may wax toujours du ma ne ñi fa nekk wala ñi fa jaar liggéeyuñ def nañ boobu mais dañ def lu tollook seen mën-mën alors boo gisee ne yow li ñu def doyu la ñu xaar ba élection jegewaat ñoo xam ne parfois sax cinq ans waxuñu douze ans waxuñu hmm. élection su jegesee la ñuy ñëw ne la dañ lay defal bilan fan lañ nekkoon ba defaluñ la ko ba nga xam ko avant ba xam lan mooy jafe-jafe yi mieux élection jege si ñoom ñooy financé ASC yi te loo tam jeunes yi laay waxal jeunes yi seen bopp presque tamit dafa mel ni ñoom tamit dañoo bëgg ko leen ger euh, da ngay nekk fii bokk si benn ASC wala ngeen yor ko di naan ay tel politicien moo ñu jox cinq cent mille tel joxuñu mais ku sàccu la la lay jox hmm. ku sàccul xaalis li mu mën ak li muy liggéey la la mën a jox man tey mënuma duma milliardaire je le dis haut et fort sonn ma riche ma damay am problème comme ñëpp donc je suis un sénégalais moins alors su ma ñëwee si benn ASC dëkk bu doy ni Tëngéej mais somme yu raisonnable rek laa fa mun maye parfois sax du ma maye c' est parce que dencu ma fenn lu dul jeex ndax soo ñëwee sama buntu kër dafay taaj comme nag ñii ne dañu am xaalis seen buntu kër di taaj lu tax defaruñ ko lu tax rek su politique jegesee la ñuy génn di maye bu fekkee dañu bëgg defar dëkk bi bi seen dëkk di taaj seen koñ di kon rek la woon nañ ko depuis dix ans ou cinq un deux mois avant les élections li si garaaw sax mooy duñ génn un an avant les élections parce que kon xaalis bi ñuy génnee day bëri c'est trois mois avant les élections ASC bu nañu jaar fa ne diw maye na fa un million encore waxuma bu kenn maye parce que am na ñu am xaalis nag waaye ñooñu suñu maye nañ leen ñaanal ñu gën a am xaalis te mu barke mais dama ne jiit kenn du ko teg si diw am na xaalis en tout cas man li may. voilà moom ci wàllu programme bi dinañ ci ñëw sax pour Rufisque comme ni xam ki ñuy ki ñuy tànn ci base ban lañ koy tànnee mais déjà ci préfet yi laa bëgg ñu taxaw ak sous préfet yi gis ngeen coow li ci rejet liste ak euh, nangoo ñu kii ba ñu dem cour d'appel am ñu mu jox dëgg ci opposition bi ba tey préfet yi bàyyiwuñ jàpp nañu ni ñoom ñoo nekk ci dëgg euh, parti boobu it nu ngeen koy jàngatee est-ce que yéen vous avez subi le même sort wala euh, yéen moom seen liste moom waa bunt bi moom teewuñ ko waaw jërëjëf damay remercier d'abord ñi bokk ci coalition bunt bi surtout nag euh, ci côté Tëngéej nga xam ne à l'est nous avons le président Arona Sarr euh, que je salue au passage le président François Babacar Touré au nord que je salue également ak le président Abdou Lahad Diakhaté à l'ouest et moi-même El Hadji Amadou Samba à la ville alors ce qu'on a réussi alhamdulillah mooy on a fait des listes de manières très sérieuse et de manière très efficiente on a déposé tous à temps li ñu déposé alhamdulilah lépp jàll na donc dañu si euh, sant yàlla di si bëgg alors loolu peut-être aussi damay remercier tous ceux qui sont de notre plateforme de nos différentes plateformes parce que ñu ñoo booloo dajale def benn coalition ànd alors euh, bi si des mooy peut-être quand même à Rufisque féliciter quand même le préfet et le sous-préfet parce que ñun bokk si li ñu gis ils ont été très élégants avec euh, les partis ou les mouvements ou les plateformes politiques di ñaan nag mu wéy faut pas mu yem juste si parti euh, bi nga xam ne moo doon dépôt des listes alors lu ñu fa def lu ñu fa gis en tout cas mooy ah am na ñu ñëw respecté ñu jox leen seen gëdd am ñu ñëw dépassé ah ñu ne leen waxtu yu dépassé na nangam sangam ah ñàkkul nag peut-être am na ñu def ay recours mais jusque là information yi ñu am mooy liste yi nga xam ne sax ñenn ñi amoon nañ jafe-jafe peut-être jàll na et quelque part on se di que c'est heureux que ñu dem tous aux élections après ki askan bi bëgg a tànn ñu tànn ko de manière très démocratique et après nag ñëpp jàppale ko parce que nag loolu mooy dëkk préfet yi nag à l'intérieur du pays maa ngi gis nag ñuy kaas mais man damay tàmm euh, du ma bëgg wax si lu ma lu ma maîtriser wul à cent pour cent parce que ñaari nit ñu jote dafay jafe nga nga atte su fekkee amoo toutes les informations li may mun wax daal mooy rôle préfet ak sous préfet ak ñi nga xam ne ñoo nekk sur euh, si métier boobu mooy c'est vrai doxal yoon mais doxal yoon aussi mais tëddee njaaxaanaay su yu mel nii jote pour fexe ba réewu Sénégal ku nekk war nga posé wu question man sama dund gi su ma paree lan laa ko delloo njukkal alors sooy fonctionner noonu ku nekk sa role di ko jouer en tout impartialité te moytu loraange ndax tooñ nag dama déggoon benn sëriñ mën naa sax du turam muy Cheikh Ahmed Tidiane si muy suñu kilifa aussi euh, mu doon wax ne li mu gën a ragal mooy tooñ ndax tooñ du gàllaaj loolu olof da koy wax poste boo munti occupé boo tooñee bés a ngi ñëw di nga ko gis fii wala fële et comme que ñun ñëpp ay woy gëm lañ nañuy mm. sóor ëllëg tey day neex ba nga fàtte commencé def yoon ñeneen ñi tamit muy ñii di déposer liste nga bokk pouvoir opposition wala comme ñun nga xam ne contrôle kenn koo si mënti doon aussi nanga nga nangu soo juumee que yow yaa juum soo defee na ko su dul noonu wala lu yoon waxul tamit nga koy nangu ndax tamit ni islam wala christianisme wala beneen euh, tarixa wala beneen euh, culture waxee ne bu ñu tooñ noonu la waxee tam bu ñu wax lu dul dëgg bëgg a jàll bu mu tax nit ñi di wax lu dul alors euh, Amadou Samba laaj ville am ñu bëgg laa laaj ne ndax xam nga luy Rufisque loo koy tontu ki la bëgg laaj ndax yow li ngay laaj xam nga ko. waaw jërëjëf euh, damay tontu lii ñi ñuy wax philosophe daa tontu tout ce que je sais c'est que je ne sais rien <laughs> euh, man dama bokk ci nit ñoo xam ne dama gëm ne gëstu càmbar du jeex mukk d'ailleurs sama carrière j'ai essayé de me faire euh, un circuit bu bu du ma ne bu complet mais lu ne ma jéem ko jàng. naam dañ naa nit benn métier lay am mais man d'accord ma si nit mu na am ay métiers yu bokkul alors euh, par exemple j'ai plus de 33 certifications dans des métiers différents en plus des diplômes yu ma def si yeneen domaine c'est dire que ville de Rufisque du ma ne xam naa ko 100 pour cent mais nag du ma ne xamuma ko itam ndax foo dëkk màggee fa jaar fa dugg si ruq yu dul jeex naam nag dëkk bu rëy loo mun dox mun dox dina am ruq boo musul dugg wala kër goo musul dugg kon dinaa ne xam nañ si dara liñ si xam nag mooy dëkk bu màgg la dëkk bu mag la dëkk bu siiw la dëkk boo xam ne su ma ko mënoon tuddee dama naan c'est une ville africaine dama ne ville sénégalaise ndax dëkk la boo xam ne ba muy nekk comptoir commercial en 1588 loolu yàgg na defe naa loolu dëkk yi amoon si Afrique bëriwul kon dëkk boobu ah su dee xam mooy xam turu dëkk bi dëkk bu war a xam la xam tuuti si histoire am ak cosaanam. au delà da xam dëkk bi histoire am ak cosaanam dëkk la boo xam ne dëkk boo xam ne dafa am population bu bëri et cette population et les jeunes donc ay ñuy dund ay jafe-jafe ndax man fa laa yeewoo lu ne nag nit ñi wax nañ ko ba may nekk étudiant ba may liggéey kaay dëkk Dakar mais dama mos a bëgg moo tax chaque jour damay ñibbi Tëngéej chaque jour fa laay xëy kon jafe-jafe bu tëngëj am bëri na si yu ma xam ndax sama buntu kër comme ni ma koy waxee comme buntu këru ña fay xëccoo maire yëpp day taaj kon premier jafe-jafe deuxième da ngay am njaboot man sama njaboot nit ñi dañuy jël seen doom ne ñuy rawale man leen gis nga askan boo si bokkee doo ko daw hmm. man amul rawale samay doom foofu la ñuy jàngee jafe-jafe yi nit ñi di dund élèves yi dund dañ koy dund pour wax la sax nag dama génnee ñenn privé dugal public pour ñu ñam li ñëpp di ñam pour ñu xam donc bu dee si côté wër gu yaram falaa dëkk falaay fajo sama njaboot fa ñuy fajo donc bu dee clinique bu dee hôpitaux yi bu si ne xam naa si lu bëri boo jëlee éclairage public comme lu ma wax fooy fanaan moom kenn du la ko wax sécurité kazaalika comme ni ñu koy waxee loo jël rek ñun waxuñu xam nañ lépp de mais xam nañ réalité wu Tëngéej suñu cosaanu waajur Tëngéej la te nag mu am 97 ans te ñu nekk ku koy jege kon defe naa li ñu fekkeewul sax li ñu si raconté bëri na et nag ñu bëgg dëkk bi bokk fa si lu bëri donc Tëngéej daal mesuré nañ jafe-jafe yi xam ne nag du ñun kese ñoo koy defar. Hmm. du tam si cinq ans voilà si ngay doon. Hmm. ci wàllu yi wala parce que li liñ fi wax yëpp ak yeneen yoo ci waxu te muy jafe-jafe. Hmm. seen ñëw bi jotee ci mooy. loolu yëpp dina dina maanaam euh, Rufisque dina ko dummooy. loolu ngeen loolu ngeen loolu ngeen wax. waaw li ñu wax mooy bëgguñu dummooyu ko jë dëgmal dëgmal yoonu jëm kanam. jëm kanam gu sax dàq parce que mën nga jug ma yoonu jëm kanam ba si kanam nga teggi ko gu sax dàq mais gu ànd ak responsabilité pour wax ko si tubaab voilà mooy développement durable et responsable maa ngi tamit xam naa dinañ ci ñëw ah. pourquoi le mot voilà ce mot est très important ku responsable du rek nit ñi dañoo xiif toggal naa leen lekk nañ ku responsable du yem si lekk nañ day fexe d'abord ñu lekk li ñu bëgg day fexe ñu bañ a lekk lekk gu ëpp mu jural leen feebar waaye itam duñ lekk bañ a suur su ma ko mënoon misaal loolu mooy ku responsable maintenant pour ñëw si politique ku responsable en grande ligne si pàcc yëpp la parce que quatre éléments yi composé li gën a am solo si dëkk mooy askan bi la société elle-même nit ñi deuxièmement l'économie mooy koom bi am am bi nu muy doxee troisièmement l' environnement environnement nag en sous-entendant environnement ni ko nit ñi di déggee mooy garab yeeg jaww jeeg keew gi mais aussi les équipements équipement marchand équipement collectif donc suñu jumaa yi suñu jàkka yi suñu église yi suñu plage yi suñu canaux yi suñu tali yi suñu écoles yi et cetera mais beneen bi si gën a am solo mooy yorin bi la gouvernance hmm. et c' est surtout foofu ñun suñuy wax responsabilité yorin bi su muccee ayib bu parfait nag moom mënut am yàlla rek am perfection mais su fekkee damay joxe exemple bu ndaw rek comme que si communication lañ nekk. communication lu ñu wax top down bottom up. Hmm. maanaam maire yi décision yu muy jël dañ ko war a dem te defe naa tey xarala yu bees yi may nañ ko. Hmm. tey groupe whatsapp wala groupe yu mel ni ñoom mais war na mën a am si dëkk bi kenn terewu ko dañ koy maye kay nañ ko teg si yoon rek wala yeneen groupe wala sax rajo municipal. wala rajo communautaire ba nga xam ne lii maire bi di jël si décision li muy bëgg a def dañ koy wax di ko wax ba askan bi yëpp xam fi ñu leen jëmee askan bi tam su amee problème mënuñu chaque jour nag nga oo maire bi bëgg mu décrocher damay gis ñu koy jàmbat loolu moom nañ ñu xam ne mënut nekk ndax benn nit bu la 500 personnes bëggee woondoo mënuñ la jot mais war nañ mun am canal buñ mun jaar ba wax ji yegg si si yow bu dee wax ju concerné liñ la fale waxuma ki ma soxla man ak moom ñu nekk xarit wala mbokk loolu man ak moom mais ki nga xam ne moom dafa dëkk si dëkk Tëngéej soxla le maire dafa war a am yoon boo xam ne war na si mën jaar pour information bi yéeg donc tey dafa jot ñu am ay kanu ñoo xam nu ñu koy defee am nañ si ay idées yu leer pour que élect euh, citoyen Rufisquois bi war mën wax ne man sama koñ li ma fi metti mooy ndox mi jaar sama buntu kër suñ ko mënee régler yoon la ñu def ko buñ ko mënul regle moom war na jot information lan moo tax loolu defaguñ ko parce que beneen priorité dafa am feneen et de manière équitable moo tax ñu defar fee bàyyi fi. dimension la ci gouvernance dimension la moo tax may wax responsable. am na beneen. am na yu dul jeex yàq gi yàq gi. mais fa laa jëmoon. foofu it ñu kon yow gis nga sax xam nga réponse bi. <laughs> mais ma siy kontaan. donc la responsabilité d'ailleurs soo jëlee ñu ñuy wax ndaw ñi si àdduna waxuma si Sénégal ñu am 18 ba 35 ans dafa am ñuy def ay études souvent études yi nag du ndaw yëpp ngay laaj question mais dañuy def ay euh, échantillonnage jël benn groupe bu ndaw si sax ay dëkk yu bëri ay centaine de pays poser leen ay question ñu ngi leen tuddee les millennials réponse yi ñu joxe dañ ne li leen gën a metti si adduna ñi si ëpp si ndaw yi mooy adduna bi transparence amatu fi moo tax may wax leeral googu si yoon bi li leen gën a metti mooy euh, kumba am ndey kumba amul ndey mooy équité dafa euh, tukki maanaam kenn yemaleetu yow yaa ma àndoon ak man politique su defar koñ jotee sama koñ ak sa koñ laay defar déedéet tey man moo tax par exemple may wax toujours contre ma kenn ci opposition au pouvoir c'est fait de manière c'est fait sciemment c'est pour que bu ñu paree ñu xam ne du ñu ay noon ay adversaire lañ rek mu ngi mel ni ñaari équipe football ngeen bokk koñ dendante ngeen football mais du ngeen reyante ku ne nag da ngay bëgg a gagner mais su kenn gagner nag après bi on passe à voilà moo tax ñun ñuy oote loolu du ragal kenn ndax defe naa li ñuy lekk la ñuy lekk fi ñu dëkk la dëkk amul lu ñuy ragal mais euh, affaire bi du guerre ndax si même réew bi la donc moo tax nag li ngay wax si responsabilité ma jël beneen le changement climatique gis nañ effet yi mu am si suñu dundin dëkk bu mel ni Tëngéej avancée de la mer dafa commencé moo tax mu am xeer si booru géej gi d'ailleurs may nuyu benn jeune bu ma si doon poser question ma ne ko loolu defe naa boo gisee ñu def ay xeer suñu place sax nga xam ne géej gi daf fi avancé donc jarul ay démonstration et ñi dëkk caw leen ak jokkul ñu ngi koy dund fi ñuy wax ville de Rufisque day fees dell ba ci buntu mairie bi donc le changement climatique dafa nekk benn réalité alors tey la responsabilité et telle que li ñuy def dañu war a sóoraale dans nos politiques di def ay politique éco-responsable comme li nga doon wax hmm. sakkanal bañ a yàq yàqanal yàqanal nag na veut pas dire être pingre wala nay de mais bañ a yàq tey mënuñ toog fenn benn couloir kenn toogu fa ñu fay taal euh, lampe loolu du du bañ a nay mais yàq la dañ koy fay tey ndox am na yoo xam ne mun nañ ko def tey mënoo jël ndox mi am na système yoo xam ne mun nga am économiser ndox ndax ndox lu xam ne dafa précieux tey yeneen yu mel ni ñoom askan bi xaalis bi mu moom am na yu gën a prioritaire yoo xam ne comme l'employabilité des jeunes mm. comme l'autonomisation des femmes ak yu mel noonu ma si profité aussi di féliciter waa Give One Project ñu organiser récemment euh, une journée pour Euh, le leadership féminin ak l'entrepreneuriat des jeunes defoon ma parrain ma leen di nuyu bu baax di leen remercier loolu c'est pour won nit ñi lan mooy responsabilité et bi si gën a am solo nag mooy responsabilité ñu bëgguñ mu yem si ñii di jiite kese hmm. mooy li ma wax si njëlbeen gi si askan bi yow mi yor sa carte war a dugg si mbañ gàcc te naan dëkk bi dafa yàqu te xam ne da nga am njoboot wala danga nga ko war a am ëllëg soo duggee si mbañ gàcce votel nit parce que juste sa frère benn jour romb na fi gisu la nuyu la non mooy responsable responsabilité mooy nga toog candidat yëpp nga hmm. bàyyi xel li ñuy wax jéem a càmbar ñoom ñooy kan parce que bul yem si li ñu wax dafa am benn sëriñ bu doon wax ne bul jàppee nit ñi seen wax jàppee leen seen jëf nga renseigné wu si seen cosaan tuuti nan lañ dundeek seen askan pour nga mun a xam à peu près kan nga si gën a wóolu te nag bul mere keneen ku jël beneen choix nga dem def choix boobu te nga assumer ko ëllëgee lu si am nga xam ne yow au moins sa diggante ak sa aqulaay taalaa comme ni ñu koy waxee si ñu gëm. def nga li nga ne askan woowu mu ci logique boobu nga wax ci tànneef bi parce que souvent ñun xam nañ ci critères yi nga xam ne moom la nit ñi tànnee li nga wax ni mm. souvent sax duñu am lisibilité bi ci candidat yi nga xam te ñoom ñooy jongante ba mën mm. leen teg mën a xam programme yi mm. donte gars yi nag seen programme yi dafay yaatu loolu lu ne dinañ waaw du ma du ma ne defuñu dara parce que euh, ñi fa jaar bëri na et ku si nekk dama naan def nga li tollook sa mën-mën am ñoon def plus am ñu def moins euh, li may wax mooy en tout cas si ñu mujj nii li ñu def ak li ñu fi fekk dese nañu doy nag dëgg-dëgg ndax suñu dëkk melut ni ñu bëgg te lu tax ñu gëm ne defuñu li ñu doy dafa am dëkk yoo xam ne ñun ñoo leen rawoon si côté assainissement ñoo leen rawoon si côté yu bëri mais dëkk yooyu diggante ñu am maire ak léegi mu changé bugguma def publicité parce que su ma tuddee ñoo xam ne si ay parti lañ ne gars yi ne wala fala far wala faru fa hmm. mais am na fi dëkk yoo xam ne ko interrogé wu si Sénégal ñëpp xam ne ni Tëngéej moo leen rawal waaw léegi nan lañ def ba dëkk yooyu ñëw waxuma ruppi parce que du concours boo xam ne ñoom ñooñu waruñu baax dañu war a dem dañ leen di ñaanal dëkk yooyu sax ñu gën a dem mais aussi foog Tëngéej nag ville bu existe depuis mille cinq cent quatre-vingt-huit ah yàgg na dëkk boobu suñu toogee en deux mille vingt et un ville boo xam ne li xew Sénégal moom la waata ngay di bàkkoo chaque jour ma a leen gis nga suñu nekkee fi naan ñoo fi gënoon ñoo fi rawoon loolu du ay wax wax ji mooy fan lañ jóge fan lañ toll mais fan lañ bëgg dem fi ñu bëgg dem moo am solo alors kon dëkk boobu noonu jàpp nañ ne ñu fa jaar nag dëgg dëgg bëri na lu ñu defut hmm. bëri na tam loo xam ne ñàkk a def gi nag peut-être wuñ damay waxtu woon bu ñu nekkee si gaal gu bënn si biir géej duñu wër lu ko bënn dañuy wër nuñ ko fattee nekk fi di wër ban si yi moo liggéeyul bu baax xan moo tax affaire bi yàqu peut-être defaguñ càmbar bi am nañ si suñu idée na mais ñun dañ ne nañ fatt bën bën boobu pour jëm kanam mooy ñun lan lañ mën a indi lu uuteeg ñoom li doon def luy jëmale askan bi lan la très bien question boobu nag dama si sawar lan la d'abord mooy ban tëngëj lañ bëgg defe naa réponse bu yomb la dëkk boo dem moom lañ bëgg mooy yokk mais yokk toujours de manière responsable comme ni ma koy waxee donc vision bu ñu am mooy transformer tëngëj transformé moom dafa leer mooy soppi xar kanamam soppi xar kanamam si domaine yu bëri naam loolu yéene la bu mag léegi nag yéene soo ko amee da nga naan fan laay jaar et souvent dama koy wax nit ñi ma leen da ngeen bëgg maire bu ñëw tey def fi cinq ans rek le problème yëpp mënul nekk mais cinq ans yi nag war nañ gis accroissement maanaam yokkute alors ndax da ngay am doom pourtant ñun waa Sénégal nit ñu xam ne lan mooy développement la ñu fii ku fi am doom mu am sept boo koy dugal école yaa gën a tey ne du sept ans yi si topp lay génn pourtant ba nga koy dugal école da nga koy gunge di ko jëndal bagage di ko jàppale pour lan di ko encadrer di ko utal ay professeur di ko defal lu ne pour lan pour su màggee ba tollu sa âge mu nekk kilifa yor boppam peut-être mu yor la peut sax yow nga continuer am loo yoree sa bopp ndax boo sañoon sax continuer yor sa bopp mais moom mu tekki développement noonu la war a demee mooy askan bi ku si nekk ne danga nga man lan laa mën def ba dëkk bi fii ak at fukki at ak juróom dëkk bi nekk dëkk bu am njëriñ bu neex bu ñëpp bëgg ma fekkee ko ma bañ ko fekkee ma ne fi ma bañ fi alors loolu nag ñun moom la ñu oote comme vision. moo tax ñu ne le développement de Rufisque fi mu war a njëkk a njëkkee si biir bopp waa Tëngéej la moo tax ñun suñu demee fenn def campagne wala ñuy waxtaan suñu discours dafay gudd su ni ngay wax discours bi gudd na mais am na solo ñu ne loolu lañ si bëgg comme que am na solo lu bon rek mooy mu gudd te amul solo. Mm. lu tax muy gudd parce que lu mel ni Tëngéej defe naa Covid ñun ñëpp xam nañ ko. Covid 19 fu ñu fi waroon expliquer nan la ñuy defee test nan lañ koy vérifier ne am nga Covid. nan lañ koy fajee et cetera benn docteur su la ko waroon expliquer boo yàggee nga jàngi médecine waaw dëkk bu doy ni tëngay ñaata bopp ñoo fa ne bopp yooyu yëpp am problème bopp yooyu yëpp nga war ko faj ñu bugg nga def discours bi ci ñetti minutes mënut nekk j'ai l'habitude de leur dire defar dëkk du ay caaxaan dawal avion moo gën a yomb defar dëkk pour man opérer bopp nit moo gën a yomb defar dëkk te ñaata at la nit di def pour mun a opérer bopp alors lan moo tax ñu bugg tey léegi moo indi nag ñu am vision bu leer vision boobu nag dañ ne li ci jiitu mooy waa Tëngéej comprendre ne Tëngéej mën na baax ndax dëkk yu ko gënoon bon baax nañ. muy benn ñaareel bi nag mooy ñu indi ay orientation te lu tax ñu ñun ñuy wax orientation waxuñu programme ñun bëgguñu nekk politicien buy ñëw rek indi programme teg su subaa defoo ko ñu ne da doon wax lu ko neex orientation nag mooy comme tey ñu ngi Dakar war a dem Tëngéej mun nga ne suba dinañ dem Tëngéej incha allah bu mu di jotee loolu orientation bu leer la te fas nañ yéene def moyen d'une heure si yoon bi. loolu leer na mais boo xëyee ne péage ngay jaar ñu ne la péage bi dañ koy defar dañ ko tëj est-ce que da nga wax lu dul dëgg déedéet yow da nga ne dañuy dem Tëngéej mun nañ xëy nga ne nañ jël péage fay 1000 francs donc am na lu ñuy fay sax nag pour gaaw mais su la ne dañ tëj péage bi doo ne dootuñ dem Tëngéej parce que yow sa orientation dem Tëngéej nga jël route nationale suñ tëjoon route nationale sax peut-être nga loué gaal donc dans tous les cas il faut yoon bu gën a gaaw ngay njëkk a wër su sottiwut nga jël beneen moo tax ñun ñu wax orientation les orientations on en après nag on a des idées de projet pour être très précis. parce que soo ne projet voilà. pourquoi ñu wax idée de projet parce que mën nga démarrer ñu dénk la dëkk bi am ñuy xeex projet yooyu parce que xam nañ ne soo ko fii lu ñu naan ku xam ku ñu xam foo jëm am na ñoo xam ne bu dee noon lañ. Mm. foofu nag la ñuy soog a xam suñuy noonu. ku bëggul loolu sotti mooy nag noonu tëngëj nga noonu ñun ñii nga pourquoi parce que moo yow bëggoo ñun. ñu génn ci jox yi daf si bokk l' de la façade atlantique. ndax tëngëj pour nga defar ko ñeenti éléments yi ma fi waxoon muy dëkk bu munti doon d'ailleurs askan bi ngay defar wala nga jéem ko defar maanaam nga indi luy tax mu yokku am yokkute économie bi nga indi lu tax muy jur njariñ lu mag parce que waxuñ nga defar économie économie buy yëngatu am na risque économie mu ngi yëngu mais lan la jural waate nga usines yu mag yi am na dëkk yu amul usines yu ñu lan la ñam ñoo ñu raw kon usines yu mag te juralu la njëriñ bi nga soxla du bonde mooy économie moo tëddeewul nu mu la mën a jëriñee marché Tëngéej bari na marché yu mu ëpp fii si région de Dakar mais am na dëkk yoo xam ne amuñ sax marché te ñoo dàq Tëngéej lan moo tax kon suñu économie ni ñu ko defaree dafa des suñu environnement kanaalu Tëngéej su ma amoon dinaa la yónnee photo yi wala su ngeen fa gemee di ngeen ko gis mais kenn xamut lu muy niru loolu suuloon ko sax parfois nga naan est-ce que gënul woon donc kanaal bu mel noonu environnement boobu ñu si sotti nag li si gën a garaaw mooy kër yëpp dañ si branché seeni ndox ndox yi di dugg si géej gi muy yàq géej gi ndax du si benn at la ko yàq mais à long terme dootuñu am jën mun na wàññi jën yi si dëkk boo xam ne ay bato léegi ñoo fi napp si kon nappkat bi dëkk jokkul yor gaal moom fan lay jëre jën donc cela et tel que donc foog ñu indi leneen moo tax nag ñun ñu ne lan lañ mën a indi loo xam ne boo ko defee day régler ndox waxuma problème yëpp de problème yu bëri si askan bi alors moo tax ñu ne aménagement de la façade atlantique c'est une idée de projet bu am solo boo xam ne lan lañ si fas yéene mooy def ay étude lu leer def nañ nag ay étude de préfaisabilité mais étude de faisabilité amuñu xaalisam parce que coûte deux millions mm. foog ñu def ay étude de faisabilité yuy wone soo bëggee aménager la façade atlantique de Bata à Cap de Biche sur 7000 mètres muy 7 kilomètres fu ne nga def zonage wala zoning zone bu ne lan moo fa war ne te li fay lan la mën a jural askan bi par exemple bu amoon zone commerciale ñaata emploi lay créer ñaata boutique ñoo fay ne boutique yi ban architecture lay am boutique yi bu ko doon joxe ñaata lañ koy joxe et cetera et cetera loolu nag ay étude moo koy may su amoon zone bu war a nekk zone touristique ay hôtel war fa ne yan façon hôtel ñoo fa war a ne cinq étoiles ñaata chambre nangam sangam pourquoi parce que la région de Dakar si vingt ans yi di ñëw population bi day yokk trop d'accord loolu eh, eh, eh, ñi jàng euh, métier xam-xam boobu ñoom ñëpp bind nañ ko mu ñu nekk Sénégal mu ñu nekkul Sénégal que la population africaine sax de manière générale dafay yokk mieux à au Sénégal selon statistiques yi ñu gis si ñenn ñi ils disent que di deux mille soixante cinq euh, la population dafay doubler et nous serons 63 pour cent à vivre en ville donc dans les zones urbaines kon loolu dafay wone ne kon rek dëkk bu nekk Tëngéej nekk diggante Diamniadio ak dakaar muy ñaari dëkk yi gën a mag Sénégal mais dëkk boobu munul bañ a nekk ville donc pour mu nekk ville nag. état am na si wàll certainement mais collectivité yi muy suñu maire yi am nañ si liggéey bu ñu mun def donc moo tax ñu gis ne façade atlantique boobu boo ko valoriser lan la lay jural mooy un day jur ab yaakaar si askan bi deux dafay contribuer à la politique de la ville maanaam day changer xar kanamu dëkk bi trois dafay jur am xëy cest à di du ay bureau mais ki dem créer benn restaurant am GIE dem di fa liggéey ñaata nit a koy liggéeyal ça devient plein d'entreprises à créer ces entreprises boo amee ay pexe mun nga indi lu ñu wax ay accélérateur pour ñu gunge leen pour que dans dix ans ñu nekk ay grande entreprise mooy dootuñu sax yem ubbi restaurant Rufisque peut-être dañ koy ubbi si yeneen dëkk yemul foofu dafay jur aussi une autonomisation chez les femmes parce que mën nga ko defee noo xam ne fu ñu jël benn góor jël benn jigéen mieux entreprise yi nekk tëngëj mën nga ko monter noo xam ne suñ gañewul marché yi tamit ñu nekk ay sous-traitant si réalisation mën nga si profito defee ko noo xam ne day arrêter avancée de la mer mieux mun nga si profité mu développer la culture c'est-à-dire le tourisme parce que mun nga valoriser euh, le patrimoine culturel rufisquois matériel immatériel de sorte que nga am ay circuit touristique am ay musée comme ça hôtel yaa fay tabax nit dina sawar ñëw Tëngéej ndax au delà de loger dans un hôtel dina am lu mu visiter mm-hmm. mun nga fa développer centres commerciaux yu moderne yuy jaay li nit ñi bëgg wala tam yuy jaay produits artisanaux yi nga xam ne ku fa ñëw di nga jënd produit bu jógee Sénégal mais tam boo bëggee produit bu jógee bitim réew tu fais d'une pierre plusieurs plusieurs coups te parewuma sax des na yeneen mais bon moo moo on aura l'occasion yu ñëw ci bu ñu duggee ci campagne bi ci aju euh, yéen a jàngi fii euh, xëy na yéen a ciy dox waaye ci seen wet ñi ngeen nar a jàkkaarlool ay tur yu mag la léegi ay Ismaïla Madior Fall di professeur bu mag euh, ñu xam koy taxawaayam ci benn bokk yaakaar di nga dégg léegoo léegi ay Seydou Seydou Diouf ak ñooñu mm. yooyu yëpp ak ñeneen ñu ñuy émerger ñu mel ni ñoom te tudduma leen mm. Euh, yaakaar ngeen dina yomb ngeen romb leen nii. waaw euh, xam nga defe naa damay jël nag exemple d'abord may nuyu kilifa diine yi si Sénégal euh, soo jëlee ku mel ni maam Borom Touba ku xam âge bi mu commencé di jaamaarloo ko waxuma la rek nit ak sénégalais ak sénégalais mais di jaamaarloo lu ñu doon wax la colon ñun ñoo ñooy suñu modèle nga jël maam Baye Niass ku xam âge bi mu bindee livre am yi mu njëkk a bind. nga jël maam Limaamul di xam ban âge la taxaw oote fii si Ndakaaru nga jël maam El Hadji si xool ban âge la jóg di bind si yónnentu boo xam ne arab yi sax binduñu doy ni li mu bind nga jël Seyxal Xaaji Ahmad Dem mu xëy défier tout une génération arabe ak nit ku ñuul def saraa alxuraan quatre-vingt mille pages nga jël ku dul sax jullit ñoom Nelson Mandela xool un avocat mu mënoon dem dem si benn dëkk tubaab dafa liggéey nekk avocat gañe f yëpp d'ailleurs man à onze ans commencé défendre Nelson Mandela ba le président Abdou Diouf di ma bind ay lettres di ma jàppale di ma félicité donc man dama mos a gëm lu ñuy wax leadership maanaam gëm ne yàlla newalu fi kii wala kay ñëpp la fi nekkal e soo nekkee si yoon bu baax bi waroo ragal lu dul yàlla moo la war a ragal mais yow waroo leen ragal ma leen di nuyu nag di nuyu ñi nga tudd comme que ñoom nga tudd ah am na ñeneen mais comme que ñoom nga tudd ñoom laay nuyu le président euh, le le professeur Ismaïla di nuyu le président Seydou ñoom ñëpp. ñenn ñi xam naa leen ñenn ñi xam naa leen dono alors ce sont des personnes que je respecte souvent sama habitude di wax ne ay nit lañ yoo xam ne pour Sénégal waruñu leen perte parce que am na lu ñu xam mais nag yorum maire yi hmm, dafa am lu mu laaj mieux waxuñ ne ñoom munuñu ko si mën naa mun nañ ko mun na am sax mun nañ si lu bëri mais ñu ni tamit am na lu ñu si mën nag ndax suñu profil maye na ñu war a mën a dugg nekk candidat si ay collectivité mieux man jàpp naa ne gënuñ ma xam tëngëj ah réalité tëngëj man tëngëj laay fanaan. j'espère que ñoom j'espère que ñoom fa la fanaan. en dehors de xam tëngëj tamit dafa am benn réalité mooy ni pour la première fois ngeen participer ci on va dire que amu leen expérience gestion gérer est-ce xam ngeen mairie li muy laaj est-ce que naan ngeen. Euh, code général des collectivités territoriales <laughs> mooy. Euh, xam nga loolu nag moo ñu moo ñu lor nag foofu nag laay kontaan sa laaj bi cette déformation où une classe nous fait croire que soo jàngut droit kese. texte yi kese mooy defar dëkk alors le management de projet fan lañ koy teg si defar suñu dëkk yi man pourtant moom laa def la digitalisation moi j'ai été meilleur IT manager Sénégal fan lañ koy teg ok ñu demati si planification urbaine j'ai été dans l'un des cabinets et je le cite et je salue le directeur général euh, muy Pape Demba Touré ma koy remercier muy koo xam ne def na si man lu bëri le cabinet consultant associé où j'ai pendant dix ans chef de projet on a fait le schéma directeur d'urbanisme de Dakar de Thiès de Diourbel de Louga de Ndianga Bambodji de Ziguinchor expérience yooyu fan la ñu koy teg j'ai expert de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine organisationnel de tout ce qui ONG et j'étais très jeune ay 27 ans alors damay wax nañ professeur yi dama leen respecté borom xam-xam lañ mais nag euh, euh, yor dëkk du droit kese nag dëgg-dëgg le président de la République du Sénégal je le comme exemple rek du question dama far fi wala dama contrefait lan la jàng est-ce que droit la jàng si waxuma jàngu ko. du du métier merci. ñu nekk droit ñoo topp si ginnaawam di xool donc boo yoree mairie du yow kese yaay liggéey nit ñi aussi dañ koy fàtte moo tax ñun ñu wax toujours ñu àndandoo. alors planification boobu nag ñun nag suñu métier la nag jàng nañ planification moi j'ai de l'expérience de la j'étais directeur de la stratégie donc au Puma ak nekk consultant international defar stratégie yu dul jeex fi par exemple euh, université du Sine Saloum ak yeneen ak yeneen donc ak ay réew sax yu nekkul Sénégal donc am nañu expérience ci planifier am nañ expérience tam ci management ne diriger nañ man du may liggéey ba léegi alhamdulilah j'ai été toujours un responsable donc am na lu ñu si xam maintenant nag xam-xam boobu conjugaison nga war a def ak boole loolu yëpp utiliser ko développement wu dëkk muy planification stratégique du développement loolu dañ ko soxla am beneen mbir nag ma wax si métier boo xam ne xam naa ci quand même muy planification la planification structurelle ñu ci bëri xamuñu sax lu mu tekki dañ koy tëb lu bëri si suñu réew yi waxatuma Sénégal kese Afrique sowu jant bokk na ci liy tax suñu difficulté yëpp am wala suñu koy def on le fait pas bien loolu muy étape boo xam ne waratuñ ko brûler mu des nag la planification opérationnelle moo gën a safati bari na si ñoo xam ne bu ñu toogoon te ku ko si bëgg weerante rek ñu teg ñu si plateau ñu dugg si détail technique on verra dinañ xam ne tamit lu ñu tax ñu nangu parce que man du man maa décidé ñoo ne damay nekk candidat ay jeune ay mag ay Rufisque quoi ñoo njëkk a ñëw ne ma dañu bëgg nga nekk candidat Rufisque ay ñu dëkk Sokone ndax maa ngi leen di nuyu aussi sama yaay foofu la dëkk ñëw wax ma même chose ma toogaat beneen semaine encore ñu dëkkaat Rufisque ñëwaat mais je me suis dit que peut-être c'est yàgg naa nag liggéeyal sama réew comme je vous à 11 ans a commencé di def ay bandes dessinées sur le programme élargi de vaccination pour sensibiliser di dugg ci kër yi di wax yaay yi dem leen vacciner seen doom yi contre euh, yenn maladie yi si laa doon bind pour ñu libérer Nelson Mandela di bind le président Abdou Diouf moom si boppam yónnee ko ay bandes dessinées ba mu ràññee ma di yónni le président euh, le président Iba Der Thiam ministre ñu may félicité di ma bind ay lettres j'ai changé même avec lui même ay conseils techniques am ay Babacar Carlos May ils m'ont reçu plusieurs fois alors yemuma foofu j'ai toujours lutté contre le sida et j'avais même pas 12 ou 13 ans donc man dama mës a gëm ay xeexal askan bi man sama bopp maa ngi bokk ci benn association boo xam ne tey nekk na ONG ñu koy wax Femme Plus 94 la commencé tey bénéficiaires yi mot nañ 250 000 bénéficiaires alors de la même manière nag bi ma gisee ñu may woo ci politique mooy donc yàgg naa ci politique de développement créé naa tam association pour le développement association pour la maîtrise de l'informatique ñi ci nekk tey ay candidats lañu sax ci jongante kon ñun li ñu doon liggéey ah du ñu bàkku mais jàpp nañ ne am na impact si askan bi ak yeneen association association pour le développement de tous et cetera donc léegi nag bu ay nit ñu nee nañu nag yéen yàgg ngeen xeexal askan mais dañ bëgg ngeen ñëw ci beneen terrain bi ñu politique bi nit ñi xam et ñu gunge leen si ñu àndandoo si mais on a dit oui mais on a posé des conditions gannaaw bu ñu tàggoo suñu waajur pour mu ñaanal ñu ñu am barke dañ leen nag ñun kese mënuñ ko def dañ koy àndandoo moo tax ñu bëgg àndandoo askan bi pour que ñu dem ci mbir yoo xam ne kenn nit du ko def mbooloo moo koy def mais tamit dama leen di wax souvent ne buñ koy def dañ koy teg si wax sa xam-xam waxuñ ñun ñoo am xam-xam déedéet wax sa xam-xam mooy domaine bu ñu si soxla wax ñu jël ku si am xam-xam nag mu wax si bàyyi wax sa xalaat wax sa xalaat am na fu mu baaxee les faits divers autres foog ñu def wax sa xalaat c'est pas que je suis contre la presse du tout mais je veux dire si yorum dëkk moom mënul nekk wax sa xalaat ay woy man dama bëgg tëngëj euh, nekk ay gratte sa xalaat nga wax mais tu sais mënagul nekk donc nous on s'est dit foog ñu teg ko ci xam-xam et moo indi nag suñu soobu ci politique et am courage bu doy ni tamit fa lañ dëkk man sama bopp ñi may àndal ñi ci mën a nekk candidat du ñu jeex donc on se nag soo amee plateforme boo xam ne nit ñi ci ne kenn ku ci ne mën na nekk candidat suñu ñi ma fi cité léegi ñu nekk candidat dans les différentes zones mais pourquoi pas suñu amee vision bu claire teg ko ci planification bu leer ak orientation yu leer waruñu mun a dem nag laaj les leviers surtout que nag ñu yor leviers yi ñoom ñu koy xëccoo ñu si bëri ñoom yor nañ leviers yi ñaataat ñi nga ma fii citeel nii mais ñu ngi si mbir yi ah. hmm. kon lan moo tax suñu dëkk yu doxul jàpp naa ne kon c'est une question importante à leur à leur à leur poser voilà merci encore bongo El Hadj Hamidou Amadou Samba mu ñamoon gan ñu doon waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi ak euh, lu aju ci candidature am xam naa du ñàkk liñ fi wax yëpp dinañu intéressé waa Equivox TV dinañ dox jëm si foofu Rufisque su ko defee ci euh, naal yi ngeen am ak it yi ngeen am ñu xool it ngeen ko fas yéene jëmbal may fàttali ne yow yaa jiite parti Alliance nationale euh, pour un développement durable et responsable du candidat également à la mairie de la ville de Rufisque émission beneen yoon beneen numéro euh, c'est politique ci Equivox